li tax nag mooy waxtu wu nekk euh, doomu aadama moom ci ak dundam day am yu koy gaar mu cay am ay taxawaay jullit bi it lépp loo xam ne xew yi xel taxawaay ba nga xam ne moom la ko ca diineem digal mu war ko caa taxaw kon li nga xam ne moo am dañ ci bëgg a indi rek tomb yu gàtt mooy eh, taxawaay bi ci ab jullit war a taxaw en tant que jullit waaye it li nga xam ne moom la ko ci diineem digal loolu ci lañ bëgg a tënk rek kàddu yu gàtt yoo xam ne ab fàttalente la ab soññeente lay doon li jiitu ci xew-xew yu mel nii bu amee muy lu mel ne mbas wala tawat wala jàngoro ju wàcc ci jamono mooy nit ki war a xam ne day am ay sabab xam nga causalité moom jullit bi daf ko war a gëm waaye bu gëmee ne lenn lu nekk am na sabab it war naa gëm ne sabab yépp it suñu boroom subhaanahu wa moo nekk ci ginnaaw moo tax ñaari taxawaay la war a am ndax taxawaay bi nga xam ne mooy lu lu nekk rek suñu borom bindal na ko sabab bu muy jaare sabab boobe mooy couse direct yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam wala science ñoom loola moo leen di yitteel mbir mu nekk rek dañuy xool lan moo ko war a waral ak naka lañu war a jëflanteeg mbir moomu kon ñaar yooyu jullit bi mënu koo bañ a bàyyi ci xelam mooy mu am pas-pasum ne fa subhaanallazi bi yadihi malakuutu kulli shay'in wa ilayhi turjaun mu xam ne suñu borom subhaanahu wa taala nag léppam lépp lu am ci àdduna mu ngi ci loxol suñu borom subhaanahu wa taala loolu jullit da ko war a gëm ala lahul xalqu wal amr suñu borom moo bind ci mbir yi mi ngi ci loxom loolu jullit bu nekk da ko war gëm ak situation bu mu mën a doon wër loolu wërta génn ci pas-pasam ndax loolu dafa bokk ci liy mottali pas-pasub doomu aadama pas-pasub jullit bi waaye nag bu amee pas-pas boobu ba noppi mu xam ne suñu boroom mi bind moom lépp moo wut ay mbir mbir yooyee mu wutal ko ay sabab dañuy wax causalité cause ak effet loolu suñ boroom daf ko bind ci jamono ji loola nag mooy tax bu dara amee lislaam jàngal la nga jëfandikoo ay sabab jaar ca sabab ya nga xam ne moo la cay musal ku mu dalit mu jaar loola ca sabab ya nga xam ne moo la cay moo lay moo lay faj moo taxoon yonent bi alayhi salaatu waxoon ne yàlla moo wàcce jàngooro wàcce saafara kon ba noppi lënkale leen ñoom ñaar kon jullit bi ginnaaw bu gëmee suñu borom subhanahu wa taala gëmub dogalam waaye dafa war a gëm ne suñu boroom moomu moo sa moo sàkku ci jullit bi mu war a sabablu loole buñ demee ci alquran gis nañ suñu borom subhanahu wa taala dañu wax ne bu leen wala tulqu bi aydikum ila tahlukati lépp loo xam ne mën na leen indil alkande bu leen ca sóob seen loxo kon loola mooy alkande ci yàlla la dekk waaye nit ki waru koo sabablu wax ne bu leen rey seen bopp wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp kon mooy nit ki léeg-léeg muy sabablu loo xam ne bakkanam mën na caa des wala muy du def loo xam ne alkanem mën na caa nekk kon bu ñu alquran ne bu leen sóob seen loxo ci lu leen mën a alak loola kon mooy na ngeen di moytandiku kon loolu mooy li ñuy wax prévention wala wiqaayatu mooy fegu ba ba li nga xam ne mën na laa lor du agsi ci yow loola it yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngale na ko ci addis yu baree baree bari am na fu ñuy wax ne ki nga xam ne dafa am feebar bi ñuy wax josaam jusaam ci ñenn ñi daan ko firee ràmm mu ne na ngeen ko daw ni ngeen di dawe gaynde kon na ngeen ko moytandiku ni ngeen di moytandikoo gaynde loola kon yonent bi alayhi salatu wasalaam dañuy digal ne nanga sabablu na nga jël say matukaay ci loo xam ne mën na laa lor loolu it kon jullit bi bu xamee loolu kon li ko war ci lu mel nii bu amee mooy mu fegu jël ca sabab ya bokk na ci nag fegu mooy xool li nga xam ne ña ca seen xam-xam màcc dëgg-dëgg ñoo ko digle ne lii de tawat ji moo koy joxe waaye lii nag mën na cee musal nit loolee daf caa war a tënku te buñ xoolee li nga xam ne mooy jàngoro ji am ñu koy wax coronavirus walla covid 10 covid 19 li ci tubaab yi digle fajkat suñu fajkat yi digle ko ci bu ñu xoolee lépp lu fe lu ñu lislaam digaloon la ba noppi ñu war koo def lu ñu lislaam digaloon boo xoolee set set jullit wërta xaar sax bañ ne ko lii tax nga war a set ndax fekkoon na alquran digal ñu set wa thiyaabaka fa tahhir loolu ku maanaam ci ku jàng ci saaru njëkk yi danga ko ci fekk loola buñ ko dee firee mooy nanga laabal sa yére loolu laabug biir a ngi ci laabug bitee ngi ci boo demee dañ naan nanga laabal sa xol waaye firi mi nga xam ne boroom xam-xam yu bari dañ ne laab googu suñu boroom wax ne nanga laabal sa yére laabug xol la ak laabug biir la ak laabug biti muy nit ki fu mu toll war naa jéem a war naa jéem a set fu mu toll war naa jéem a war naa jéem a set te bu ñu xoolee raxasu bii nga xam ne dañ koy digle yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne nit ki bu yeewoo balaa jël loxoom di jàpp di ko dugal ca ndab la muy jàppe na ko raxas ndax xamul fu loxoom fanaan ku yeewu bala ngaa jël sa loxo di ko jóo ci dara wala ci ndab na nga raxasu ndax xamoo fu sa loxo fanaan kon loolu yaa ngi ciy dégg ne kon looy nar a jëfandikoo ci sa loxo sa loxo euh, noo am sa conscience waxtu wu nekk ngay contrôler sa loxo lum laal ak lum laalut wala lam laal lora nga ca wala déet kon loolu ñu dégg ci ne jullit bi lii ñu ko digal ne da koy musal lu ko yonent bi digaloon la alayhi salaatu kon bu koy def sax war na caa fasaali ne day jaamu yàlla day topp ndigal ndax jëmmi laab ak set ba fa bokk ci gëm yàlla at tahuuru chatrul iman maanaam laab dañ ne buñ bu jëm yàlla doon doon doon ñaari ñaari xaaj mën nga ne benn xaaj ba mooy set ak laab ca loolu gis nañ li ci yonent bi jàngale gis nañ ci li ci alxuraan digle kon loolu dafay tegtale rek ne lii ñu ñu lii ñuy wax ne dafay mus le ci jàngoro ji jullit bi war na caa tënk war na caa fasaale ne kat lii lu ko diineem digal digal la ba noppi bu jàmm mu cay jaamu yàlla ñaareel bi nga xam ne bokk na ci yiñ koy faj fegoo mooy kenn ku nekk ku booy booy booy booy booy booy booy tis nga nga nga nga fexe ba yor loo xam ne danga nga ko ci muur ci say bakkan ak sa gémmiñ loolu ba ñu yonte bi alayhi salaatu waxee ne bu kenn di tisli da jël ay loxoom def ko ci kanamam ca wàcce kàddoom kenn xamul kañ la woon kon nit ki loolu loolu comportement la ak doxalin aku nekkin woo xam ne yonent bi yaroon nañu ci ba noppi ñu war caa góorgóorlu kon bu fekkee ne wax nañ ne jàngoro ji day law ca day jaare ci loolu ñu digle ne képp kuy tisool yi na nga fexe ba wala ngay sëqat na nga fexe ba jël musuwaar ca boo noppee musuwaar ba nga def ko ci poubelle walla nga jël sa loxo loola fekkoon na am na xadis boo xam ne wax na yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu daan ci sóol dafay jël loxoom teg ko ci kanamam walla mu jël yéreem teg ko ci kanamam kon loola mi ngi ñu doon jàngal ne kat kon ndekete loolu ay jàngoro mën na ci génn ci yow tasaaroo nit mu dugg ci nit man koo lor te yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu jàngaloon ne laa darara wala diraara kenn wërta loru kenn wërta lor kenn kon yooyu ndigal yooyu it bokk na ci li ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci lu demee nii mooy su ngeen ko déggee ci barab mu law fa bu leen fa dem kum fa fekkoo nit bu ko fa jële di ko yóbbu feneen ngir maanaam bu fa jógee di dem feneen ngir bañ jële ko fa yóbbu ko dem feneen mu law foofa nga wàll ña fa nekkoon kon déplacement yi ñuy wax loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo njëkk a digle bu yu mel ni amee ndax ginnaaw mënaguñoo xam mandarga yi kam dal kam dalul nit ki mën na koo yor ci biiram ay fan ca du ca mandarga yi du ca feeñ kon loolu moo war a war ñu war a gën a góor góorlu ci ndigal yooyu ñu ñu jox te muy ndigal lu ñu suñu diine jox ndigal lu ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ñu góorgóorlu ci farlu ci loola lu mat a bàyyi xel la kon képp koo xam ne am nga xel ñaar ci ne barab bii day mën na faa nekk war ngaa bàyyi xel ba maanaam bañ faa moytu dem fa ngir bañ ko faa jële wala jóge fa yóbbu dem foo xam ne nekku fa ngir bañ ko faa bañ ko faa tasaare kon loolu ay ay ay taxawaay la yoo xam ne lislaam moo ñu ko jàngal mu am nag boo xam ne it jullit bi ni ma ko waxee woon bi may tàmbali war naa gëm ne yàlla kat léppam ci loxoom la nekk donte dana ko wutal ay cause directe waaye ñu bañ ñu bañ fàtte cause indirecte yi nga xam ne yonent bi waxoon na ne kat mën na ko waral loolu ay jullit mënu koo ñàkk a bàyyi xel mooy la yonent bi waxoon ne ay ñaawteef bu dee feeñ ci aw nit ñu di ci nëbbatuñ ko suturaalatuñ ko saa buñ ko defee am mbas man na faa wàcc ak métit yoo xam ne ña leen jiitu woon xamuñu ko woon loola it jullit mënu koo ñàkk bàyyi xel ci kon ñuy dellu ci yàlla di tuubal suñu borom subhaanahu wa taala ak a ñaan te loolu it suñ kilifa yu baax yi digal nañ ñu ko ni ñu niñ ñu digale ñu déglu bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo ñoo ci am xam-xam la joxe comme ay digal ak i consigne noonu lañ ñu digale it ñuy dellu suñu borom di ñaan di jàng ay xasida wala ay ñaan yoo xam ne mën naa musal te loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nañ ci ay ñaanam mu daan ñaan yàlla musal ko minal barasi wal juzaami wa min suu il asqaam yonent bi da bokk na ci ay ñaanam di ñaan yàlla musal ko ci jàngoro yi nga xam ne yu bon la di lawe di law di mën a wàllaate ak bépp jàngoro boo xam ne bu baaxut la te gis nañ muy joxe sax ay ñaan yonent bi day wax naan ku koy def danga nga mucc bismillahi allazi laa yaduru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi samaai huwa samiul alim wax nañ ne ku koy wax su moo ko waxoon ku koy wax suba ak ngoon danga mucc ci lu lay bett ci jàngoro joo xam ne mën na laa mën na laa mën na mën na laa bett ga faagaagal la wala mu gàllankoor la kon loolu rek ay junju la ci ne dañoo war a jël matukaay yi ci ñaari wet yëpp matukaay yi nga xam ne mooy li ñuy wax cause directe yi nga mu mucc ci nga xam ne mooy sabablu ci set sabablu ci fexe ba yor comportement boo xam ne doo jàkkaarloo kenn di def loo xam ne day am luy jóge ci sa biir di génn boo amee jàngoro mu mën a law nga moytu ko waaye moytu déplacement yoo xam ne ay risque ma nga ca loolu yonent bi alayhi salaatu salaam dañu ko digal suñu diine digal ko mu dëppoog nag li nga xam ne moom lañ ñu ne mooy mooy mooy tax jàngoro ji du law ca loolu dañ ko war a bàyyi xel waxtu wu nekk même bu dara xewutoon sax dafa doon loo xam ne sa diine dala koo digal nga war koo jéem a def kon it boobu bi ci desin mooy ñaan yi ak tuub ak kenn ku nekk loo xam ne du lu yàlla gërëm loo man ci daw ko bàyyi ko nga bàyyi ko loola it mooy wane ne yaa ngi dellu ci sa borom nangul nga sa borom mooy jël nga sabab yi waaye bàyyi nga xel ne suñu borom subhanahu wa taala kat waxoon na ne ci yoonu yonte bi moo ko waxoon ay ñaawteef dana waral lii di wàcc ci ay ci ci ci ay doomu kon ñooy ñaan loola ñaan yooyu gis nañ Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ku daan digle ñuy ñaan la gis nga ay ñaanam mët la bu shifaay boo nemee lam cay ñaan lépp ci yàlla musal ñu ci ay balaa ak i jàngoro boo demee ci mët la bul fawzayni nam ko ñaane ak yeneen xasit yi nga xam ne sëñ bi sax digle woon nañu di ko jàng loola kon ñu bàyyi ko xel mooy ñu bàyyi xel ci ñaan yooyu ak sabab lu waaye bàyyi xel ci ndigal yi nga xam ne yonent moo njëkk njëkk a njëkk a jox ñu dem ba lii xew ñu yeesal ko nekkat lii ku koy def danga ci mucc wala danga nga da nga da nga bokk ci ñi nga xam ne dina tax du law kon nag loolu lañ doon fàttalente suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lii nga xam ne moom la ñuy ragal di ko wax yàlla na ko fii suñu borom teggi teggil ko àdduna bépp ba jàmm dellu si ba ak dal dellu si waaye ñu boole ci nag dal xel dal xel ndax jullitit fu mu toll dafa war a dalal xelam waaye di def lañ ko digal ca dalal xelam ndax loolu lu ci ama am solo la bañ a paniquer bañ def loo xam ne ndax loola it am na am na am na am na mën naa dem sax ba lor la yow jàngoro ju la lor la lor waaye sa sa sa sa sa sa sa panique wala sa tiit ku ëpp wala sa jàq ëpp ba xamatoo looy def ba tàggoog sa sago loolu it mën naa dem sax ba far raw raw jàngoro ji ndax am na ci anecdote rek bu ñuy wax koo xam ne <laughs> nee na jàngoor ab jàngoor da ko romb ne ko damay dem dëkk sàngam waaye fukki junni nit laa fa bëgg laa fa bëgg laa fa bëgg jël ba mu fa ba mu wàññi ko ndekete ñaar fukki junni eh, dem nañ mu ne ko yow waxoo ma woon lii de da ne woon rek fukki junni mu ne ko nag man la ma waxoon laa jël waaye la ña des tiita leen <laughs> junni ya ca des tiital ko yóbbu kon loolu xëy na anecdote la woon waaye rek waaye ñuy fàttali rek ne nañ dal dalal xel yi yàlla nañu yàlla sàmm sàmm réew mi sàmm àdduna bi yépp ba liy jëlee ko fi ba àdduna bépp dellu dellu dellu si ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa